وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي جعلته رحمتك للعالمين وجعلته مسك الختام لظاهر المرسلين وبعد mbokk yi ñuy seetaan te di ñuy seetaanee fii ci seen télévision DTV ci seen émission bi ñuy tuddee ëttub lislaam dellu si nañ beneen yoon àndaat ak yéen ci beneen tomb waxtaan ak yeneen i gan di leen ndokkeel ci àjjuma ji di leen ci ziyaara di len balu ak di len baalu ak di amad yene bu sel pour and ak yéen ci jotay bi xam ngeen ni ñu ngi leen doon dig na leen bu ñu yalla maye fekke ak tal danañ fi togaat ak yenen borom xam-xam ak benen tombu waxtaan yalla may nañu fekke nañ ko tal nañ ko ñu ngi koy sant ci lolu hatta yarda tay ñoo ngi andi tombu waxtaan bo xamne ne ngi ko dippee alxarakatul wa azru ala al amni fil alam manam mu mouvement yi nga xamne ay kureel askane sen bop ci jihad seen jeexital ci sécurité monde bi loolu lañ bëgg a waxtaanee tey ñu nattoon nit contacté woon ci ay borom xam yoo xam ne am nañ ay gëstu doonte ne seen occupation bari na trop mais ñu comp ci seen jot pour gindi jaami yàlla ñu jotoon ceewoo imam Ahmed Ly imam Ahmed Ly moom ngeen jàkkaarloo ni mu bokk ci madrasatu ahlil bayt ñu woowoon ko mu comp ci jotam wuy si ñi yegsi na ci jotaay bi ñu ngi koy dalal jàmm di ko masawu ci coono déplacement bi. wawon ci it suñu xarit suñu doomu ndey oustaz Saybatu ndjay mom ngeen jàkkaarloo ni oustaz Saybatu momit tomp ci jotam wuy suñu pour eh, gindi jaami euh tomb bi waxtaan bi nak ñu bëgg a ñom ñi ngi ko bëgg a ci comme li ma lay tuddel si bëggoon nañu euh ñu defal ñi ak leral ñan ñoy harakatul jihad yoy ñoy mouma yoy nga xamne ñoy askan le seen bop na ay jihadist lañ moy ñan ak lan mo leen motivé bañ xey muju dugg ci tour wowo ba àddina bi di leen caricature ne ay terroriste lañ ñaareelu tomb bi ndax Afrique gi ñuy dund ñun tey Sénégal bokk ci biir Afrique dafa xëy doon monde boo xam ne fi la ñuy jëlee terroriste di ko yóbbu ci leen àddina bi euh, ñetteelu tomb bi mooy nan lañuy ñuy mën a layelee sol ay ngànnaay wala sol ay mbenn dugg ci jàkka dugg ci dugg ci église dem ci palaasu liggéeykaay tuddee ko nu la neex ngir ne yow jihadis nga mën a dem taal loola par rapport ak li xew Burkina Faso barki Dembo Ndiaye ñetteel bi nan la ñuy mën a def ba jàmmaarloog ñooñu pour jàmmaarloog ñu jublu ci nu ñuy mën a def ba faj ko ba indi loo xam ne ba diil la daa dañ wutule fi nekkoon au ñu doon ay terroriste li lañ bëgg a waxtaane tey Imam Ahmed gannaaw bu la nuyoo la balu la àq baal la àq di fàttali it ñi seetaan ne studio bi ñuy waxtaanee tey léegi ñu ngi ko dippee euh, Mouhamed Mike Mouhamed gay Mike yàlla na ko yàlla yërëm weer wii ñuy nekkoon ci la génnoon àddina daaw mu nekkoon fi ak ñun yàlla na yàlla sambatal yërmandeem ci ko euh, imam ahmed bëggoon nañ ko ñu defal euh, définition xarakaatul jihaad yooyu ñooñ mooy ñan ak ñoom lan moo leen motivé bañ xëy dem ba yegg ci askanale seen bopp ne ay jihadiste lañ ba monde bi di leen caricaturé ne ay terroriste lañ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله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 di def suñu warugar bi nga xam ne tey képp koo xam ne yàlla dénk na la aslëf ci xam-xam ci lislaam warugar la ci yow ngay jooxe li nga xam ne moom la yàlla subaraka wa taala teg ci sa loos wax naa ko ma baamtuwaat ko waxoon nañ ko fii ni li ñuy def nii ci euh, ñu ngi koy def ci cadre contribuable contribuable moom mooy doomu aadama yi jullit ñi sénégalais yi dañoo am droit Euh, impôts yi ñuy joxe euh, di ko di ko dajale mu nekk kees gu rëy di ci fay gouvernement bi di ci fay lépp di ci fay lépp di ci tabax école képp koo xam ne génn nga ci école yooyu benn nga mën dara yàlla mën loola dara mu di ab médecine ak faj wala kaaraange wala njàngum lislaam li war moom mooy nga delloo njukkal askan woowoo ak askan woowee nga xam ne ñoom ñoo cotisé woon ba jàng la lool ci cadre boobu moo tax li ñuy def nii ci cadre boobu lañ koy teg njukkal la lu ñu dollee li ñu delloo doomu aadama yi nga xam ne ñoo contribuer suñu formation comme ni ko médecins yi defee ñëpp lii oustaz nga laajte euh, dama naan doorul tey dafay baamtu al taarix yatakarar l'histoire se répète mm-hmm. dafay baax toujours pour nga mën càmbartal dara xam ko dangay delluwaat ci histoire dafay ñëw fàddu ñëwaat fàddu gis nga aaya bi ma jàng léegi yàlla mi ngi wax si alquranul karim yonent yi muhammad rasulullah yonent bi yàlla yónni euh, dañoo am yërmande ci seen biir ñi nga xam ne dañoo nekk ak moom dañoo am yërmande ci seen biir wande dañoo tar ci yéeféer yi waaw dañuy jaamu yàlla wande bokkul ci seeni sifaat Euh, noonee ñu amee yërmande noonu la ñuy tare ci yéeféer yi bu fekkee nee nañu yéeféer islam ni muy euh, définir yéeféer dañoo am ay catégorie dafa am yéeféer boo xam ne dafa ne man gëmuma yàlla wax ko ñëpp xam bu fekkee dafa yem ci loolu yàlla terewu la yàlla dafa la diggal sax bu fekkee yem na ci loolu xeexu la nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet la yanhaakum an alladina lam yuqaatilukum fi diini an taqsutu wa tabarru lu neex gëm gëmal niki noonu ki nga xam ne bokkaalukat yàlla la bu xeexul xeexul jëflanteel ak moom wante am na beneen façon yéeféer boo xam ne moom dafa ne gëm na te day fen alquran wax ko si alquran alquran wax ko ida jaaka almunafiquna qaalu ashhadu innaka rasulullah naafiqi buñ ñëwee si yow yonent dañ naan la gëm nañu على يعني ان دغله يا رسول الله ولكن لكن المنافقون الكاذبون وانا يعني نيوم دانيو فن غمونيو استراتيجي لا نيو ديف غير دغو سي الاسلام بي غن من راجخه من ياق لول لا تامبلي وول سي آية بما جانغ لغي يالا ميغي دلو سي تورات اك انجيل يفر يفا نيكون جامونو عيسى بن مريم اك دمونو موسى نيوم ني بن لن يونتي بي صلى الله عليه وسلم mi ngi nettali euh, ay soxnaam pour ñu bàyyi euh, ñu bàyyi xel ci naafiq yooyu ndax stratégie yu mag lañu gannaaw bi mu bi euh, Moussa génnee àdduna alayhi salaam ba mu joxee xilaafa gi ki ko ki ko remplacé naafiq yi ñëw ci soxnaam bi tudd Safura yonent bi di nettali loolu ay ay soxnaam ñëpp toog ñu ne ko safura waa yow gis nga li la dal yow nan ngay nekk yow sa baay di yonent doomu ba la ab sa jëkkër di ab yonent yow taalibe bii kañ la ñëw ak Moussa ba musaa jóge fi nga jël lépp mu teg ko ci loxoom nga nangu ko xanaa yow bi Moussa di traversé géej gi bi ya Moussa di dóor yat wa yéen àndoon lii yëpp nga bàyyi ko rek safuraa yëg boppam bu xeex ak wasi musa Moussa xeex boobu juróomi junni ak lu teg dee nañ ca yàlla may ndam Yuusa mu jàpp safura tëj ko dam ko tëjee fekk ko fa ne ko waa safura lu la xiir ci lii ndax lii ma Moussa est-ce que ump la nangam nangam nangam kenn du ñu àtte lu dul ci kanamu yàlla tabaraka wa taala maak yow ak yàlla ak ñu ne Safura xawee ko ci kaw daanu ci kaw ruum bi ne yàlla ma yàlla musal ma fekk bés boobu may jooy rasulullahi ne leen ñun taarixu yonent yi ñun ñëpp bokk taarix comme que nii la ñu jekkoo ñoom naafiqi euh, jabaru Moussa moytu leen yéen samay soxna ñu jekku leen ñu ne yaa ne ko أنيون منكو يو نك لا يوخ يو مويتول مويتول نافقي ياكل لي خيوون يا صفورا مو خيو يا عائشة ياكوكو مو خي حق الإمام علي استوار بوبو كونتيني دي لاو دي لاو با تاي امنا بليغي ньо خامن نينو ني عائشة مو ام دغ بيند نانجي استوريان خامن نكو يو بيتاي خامغا لي ماي واخ ci banu umayata ci histoire yooyu la la la bàbbeekoo xeex ña nekkoon rey ba jël nguur gi nekk ci téeméeri at yu tollo yu manqué ñaar bañu daanoo anglais yi bi ñu ñëwee di coloniser après empire ottoman bi ñu ñëwaatee fii ci Hijaz dañoo dekkil histoire boobu histoire boobu ibnu taymiya daf ci jël position bu baax jox dëgg Aïcha ñu dekkil ko fekk jamono yooyu jullit ñi nekkoon xijaas xaw nañoo wàcc seen i seen i kii seen laaf anglais yi jël euh, euh, euh, xeet ya fa arab ya fa nekkoon jox leen arme ñu xeex lu tolloog juróomi at nekk nañ fa ajiwuñu ay ajiwuñu màkka ci xeex boobu ba ñu ba ñu ba ñu dindee empire ottoman sampu ñu dindi fa buur bi fa nekkoon indi fa buur bi fa nekk léegi waay wëlbati wëlbati wëlbati gannaaw loolu nag ñun jamonoy indépendance ñu nit comme que jàngkatu lislaam lañu ñu dem di jël islaam foofee di jàngale ña nga xam ne mënuñoo ràññee ñu jël xalaat woowu tas ko xalaat boobu tey boo gisee Sénégal tey ñu xaw ci yàlla ñu xaw ci musal ñu amoon nañu ay daara yoo xam ne amoon nañu ak ràññee ñoom Cheikh Oumar wante amoon na ñoo xam ne suñu mbokk Burkina beeg zone yu bare yoo xam ne amuñu ràññee boobu ñu jël école yooyu euh, euh, fat leen ñu jàngal leen ba ñu meññ li ñu meññ tey donc même xalaat bi nga xam ne moom la ñu jëfandikoo woon jamono yi bi ñuy daaneel euh, li anglais yi defoon moom la ñuy defaat jamono yi ñu toll. moo tax ñun dañ naan euh, du ñu bett waxuñu solution bi naan la colonisation bi ndax ñoo nekk ci seen gannaaw ndax gis nañu bi ñi leen dekkil xijaaz anglais yi la kan moo leen dekkil fii ci Afrique parce que xamuñu ba léegi seen armement yi fan la jóge wax am nañu doole am nañu alal kan moo leen financé ba ñu sukkandiku ci xalaat boobee nga xam ne anglais yi ñoom ñoo ko activé woon Hijaz te te xalaat la boo xam ne xalaat la bu deewoon depuis septième siècle am na juróom-ñaari téeméeri at bi ko Ibnu Taymiya bindeeg léegi. wax ne dekkil googu ñu ko dekkil ak anglais yi ngir loo julit ñi tey lii moo ñu yóbbee lii. moo indi harakaatul jihaad mooy harakaatul jihaad yee lii. te am nañu seen i base parce que dañoo am seen i école. su ma waxee loolu encore damay yox benn présision di nga koy wax léeg-léeg waxuñu ab salafie yëpp ay nawaasib lañ déedéet maanaam dañoo nekk ci seen biir comme li ñuy nekk ci yeneen kuréel yi xalaat la xalaatin la boo xam ne dafay jëfandikoo ay tendance ci biir lislaam ñi xàmme lislaam xam nañ leen il faut nga xaw a jàng lislaam pour xàmmee xalaatin bi fan la jógee moo tax ma def la ma indi la histoire bii tey pour ñu xam commencé wul tey maanaam nattu la ci diine waxu ma rek ci diine islam bi ci nattu la ci diine yëpp ci diine Moussa alayhi salaam ci diine Isa te diine Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te naafiq yi ñoom ñoo koy ñoo koy activé tey euh, jërëjëf imam Ahmed li imam bu ma la déggee mooy mel na ni bi ngay départ sa ah yaa ngi ko dalee ci Muhammadu rasulullahi wa lazina maaha wa ashidahu ala al kufaari mel ni nga feeñal ne histoire lum mu fàtte-fàtte du fàtte ne la xewoon démb daf koy répété mu dellu si tey nga indil ñu benn histoire jàpp naa ne que muqaddima pour duggee ko ci waxtaan wi wax ñi di doxoon diggante yonti yàlla Moussa ak ki ko doon wuutu ak soxnaam nga xëcc ko wàcc ñëw ci yonti yàlla Muhammad ba muy nettali histoire boobu ay soxnaam def ci taxis ndey Aïcha hmm. nga wane ne nday Aïssa luñ mel dox na diggante ak imaam Ali bañ jógee koo ca mais lañ cay déggee bu fekkee dégg naa la la ci diggante taalibeb Moussa ba ak soxnaam xew ci diggante ndey Aïssa ak imam Ali loxoy naa feq yi la fekkee dégg naa sax nga feeñal ne eh, lu mel noonu nag eh, tawraat tudd na ko linjiil tudd na ko nga ne waaye bi ko loolu tuddee ñu dem di dem ba sim yàgg Grande-Bretagne bi ñëwee di coloniser monde àddina bi ñëw ci Ijaas bañ fa wàccee ñoom it dañoo jëfandikoo luñ mel yàlla at ñu tombee fa ak Ibnu Taymiya nga wane ne Ibnu Taymiya ci boppam mu am ay xalaat yu jël ci njàngaleem boppam mel na di ko jëmbat ci ay ay taalubeen njàngale moomu nag euh, wane nga ne suñu lu déggee moo indi séparation bi xew tey moo demit ba am ay nit ñoo xam ne nañ déggee ne lii mooy diine jombut wuute naag li moo indi xarakaatul jihaad yi bu fekkee dégg naa la waaye wane nga ne e, ibnu taymiya ba mu dugalee loola ce ñoom fekk na diggante bi al dawlal usmaaniya mi ngi fi ah, xilaafal usmaaniya jaar na fi mais terewut bi mu daanoo it terewul loolu continue mu mel ni ci gàttinel bi ko lu tax su ma la déggee mooy mouvement jihadiste yi xew ci àddina bi tey histoire bu koy lëñ baat du ci mën a seppi loxo ibnu taymiya mm-hmm. ndax njàngalee ma ngi ci biir histoire bu koy lëñ bat duñ ci mën a seppi ne njàngale mu baaxul moo ko indi histoire bu koy lëñ bat duñ ci seppi ne ay naa fekk ñoo ci dugal seen loxo moo yóbbee li xew tey ñu dikk di séparé jullit ñi kii la moo baax ki baaxul tey Cheikh Seyba bëggoon nañ ko ñu defal ak leeral eh, harakaatul jihaad yi xew tey eh, ak lu leen yóbbee ba ñu yegsi ci situation bi ñu yegsi tey ba nit ñi di leen tuddee ay terroriste aouzu billahi min acheytaani rajim بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من amrina رشدا نجد نيو nuyu mbooleem ñi jàkkaarloog ñun بير biir réew mi ak ci نيو réew di leen nuyu di di la ziare bu baax a baax di nuyu suñu mbokk mi oustad Ahmed di ñaan yàlla subhanahu wa taala li ñu fi waji garal mu néew bari yàlla ñu yàlla defal jàppandal ñu jëlé ko ak suñu xel waye nango ko ak suñu xol. amin ba am ci ridallaahi muy ngërëmal yàlla yàlla ñu ko yàlla defal. euh Cheikh nga baal ma rek bala may dugg ci tontu question bi. ma ma ma ko ci ñaari tombu yu ndaw. benn bi mooy dañuy wax ci olof naan boo nekkee ci place muy làkk di tàkk te bagage yu diis am fa ay bagage yu oyof hmm. te ña fa nekk matewuñu doole bagage yu diis yi nañu xëntewoo bagage yu oyof yi mën koo génne pour mën ko génne daw ak moom hmm. soo génnee di dawit hmm. jambul ma am ñu la topp ñu doon ñëw pour sauver ak ñu doon ñëw pour sàcc. boo génnee bagage gis ku génne bagage di daw nga xam ni kii bokku ci yow sàcc la dañu wax ni boo koy dàq. lu mu waddal na nga ko for duñ ko topp parce que am na ñu ne ci ginnaaw. li ma bëgg a foofu mooy dañoo ne ci jamono boo xam ni. julli ñu seen biir jaxasoo na jaxasoo goo xam ni seen noon yi dañ leen jekku ci yu bari. ba am na yoo xamante ni buñ ci duggee ci bagage yu dis rek dootuñu tal bagage yu ndaw yi te bagage ndaw yi moom li ñuy xënt xëntoo <laughs> li ma bëgg foofu mooy sujet yu mel nii dafa sensible te lëmbee na àdduna bi yàq na réew yi yàq na askan yi yàq na société yi yàq na tawaayif yi yàq na jamaat yi bu buñ ci wax toujours ñaare niveau bi day kaw day kawe mm-hmm.

mbok mi jàng Muhammadun Rasulullah ni contane ci trop dama ko ci tegal benen ndax xex bi indi nako waxna wax jóge waye ñoña fi jóge dañ ko don ndax alcorane daf ñu téla mettre en garde yàlla waxun bu yag wala yazaluna yuqaatiluunakum hatta yarudduukum an dinikum in istata'u koku xeex bi lu yàgg la yàlla tel ñu dànkaf yéen dul ñu na ngeen fagaru na ngeen waajal seen bopp ndax ñi nga xam ne dañuy weddi yàlla te wuute parce que ñi weddi yàlla duñ benn catégorie dañu wax naan al kufru millatun waahida ñii ni lañ mel ñii ne mel ñoom ñaar la ñëpp la yàlla ba leneen wala y xataa yaruddukum ba keroog ñu leen di génne an diinikum yóbbu lañ ci liñ nekk waaye nag iniste taw baatu in boobu nag joxe na joxe na yaakaar kooku muy benn <laughs> kon mbir mi fam commencé yagna benen mo waxat ni waddal lazina kafaru law yarudduunakum min badi imanikum kuffaaran ñun lu tax mu ne xasadan min indi anfusihim ñi gëmul yàlla seen pexe yëpp seen mébét yëpp seen bëgg-bëgg yëpp moy lan delo len ba ngeen nekkaat ay yëfër ñun waaw ñu yàlla lu tax mu ne xasadan ndax iñaan parce que xam nañ ni aduna bi ni muy dundee ni muy ni muy dund Cheikh. ay xeeraat moo fi nekk. yow nag boo préparé jël yàqute jël bakken xamaloo àllaaxira jël pexe sàngara jël lépp da ngay bëgg ku mel ni yow. parce que bu ñu bàyyee jur yi bu ëllëgee la yàlla waxoon anal arda yarisuha ibadiya salihun su boobaa ñoom ñoo koy doon moo tax ñu ne ko léegi nañ fexe ba ñun ñëpp ñu bokk yem bu ñuy alku ñu alkondo kon mbir mi foofu la tàmbalee di raam nag ba agsi ci lii Cheikh Cheikh Ahmed. doon wax léegi kon loolu laa doon dugale euh, point pour ñu dugg ci waxtaan bi léegi nag pour euh, tontu hmm. ci seen pexe yooyu ca lañuy dem yow ba dugal ci sa biir li nga am loo xam ne yaa ngi màbb li nga yor yow te te yëglu ko loolu mooy lan baatu jihadiste parce que jihad ci l'islam du firi jël ngànnaay nii di xeex boo yow delloo ci baatu arab bi ci boppam hmm. li muy firi mooy baslul jahd fii isalatil mashakil dégg nga hmm. ak ay musiba wal masaayib mooy looluy firi mooy lan caar wolof mooy maanaam daal def ay jéego ay effort hmm. pour jële fi lépp loo xam ne yàqute la ah, moo xam yàqute wax la moo xam yàqute jëf la moo xam yàqute baat bi looluy firi mais ñoom comme que def am lu ñu nar ñu leen tudd ko guerre sainte gis nga baatu ger lañ dugal ñoom dugal ñu baatu ger bu doon loolu arab daan du wax jihaad mais xarbu lay wax hunaaka farq bayna xarbu wal jihaad wal jihaad xarbu lu ne mën na koo taal mais jihaad dafa am ay ay ay ay ay lu koy taal danañ ci ak si léegi kon gis nga nit ñi nax ne ñu ger sent kon nga jàpp na kon ger la quoi fekk loolu dugal nañ ci piège bi ci biir loolu cheikh lañ de ba indi baatu jihadiste jihadiste boo ko firee ci arab lan lay firi mu jaahit lay firi mujaahid lay firi mais isti isti yooyu dañ ci dugal bokk ci déedéet <laughs> parce que ist ist yooyu nga gisee muy sant ist <laughs> fa mu gënoon a leeree gënoon fa feeñ ci ay idéologie loon maanaam ay tërinu xalaat yoo xamante ni daf fi nekkoon ñu ay nit indi fi ñu cay askanoo ñu naan socialiste mhm. libéraliste communiste communist mhm. dégg nga ak yu mhm. foofu lañ ko xamee woon mais comme ñoom dañuy laxasu ñu jël islam ñëw ne pour mu mën a gàllankoor islam dañ ko indi daal indi extrémiste. fondamentaliste. jihadiste. terroriste terroriste. yooyu ñoom dañ ko pour sànni la ko yow. yow nag boo yeewul sax da nga ci encouragé parce que fi yow ak suñu journaliste ñëpp dañu naan te boo déggee baatu jihadiste kon ci islam lañ gëm kon mbir ma foofu la jóge man moo tax man du ma leen tuddee ay mouvement jihadiste. bu ko tuddaloon parce que jihaad bu jombal ci biir waxtaan wi. danañ ci accès hmm. danañ wax lan la. Hmm. ak nan lay demee ak yu ni mel. donc loolu laa doon wax kon nag bu bu may may tasxiix bu ma bëggee ñun ñu bañ a wéeru bu journaliste bi naan jihadiste. Hmm. su conférencier bi wax naan jihadiste. kon nangu nga ne yow yow mi moom jihaad yow yaay def njom bi li nga xamante ni moo kon nañ dàq loolu. baatu jihadiste bu kenn wax man du ma yenul nit bakkaaram bàkkaar doomu aadama buy tegu du ko yenul mukk ci àdduna kon bu may bu may wéral di tesxi du ma wax nit ñi ay jihadis lañ mais maa ngi leen di wax lan ay rébel lañ rébellion la waaw la tamarud la mais du jihaad te rébellion nag buy juddu dafa am nu muy juddoo li koy jur muy cause yi nga xamante ni moom ngay junj mooy ku ñu xañ seen àq ay àq yoo am ñu xañ la ko te amulo foko joyto bu ba da ngay rebelé muy ben ben ñaar moy rir manam dañu indi jox lako comprendre lako ko. nga dugg ci ci façon bo xamanteni manam guerre perdu la d'avance parce que da nga rir sa waxi koku dina indi lan euh, rébellion. rébellion bi ci top moy li nga momon sa xeeraat yi nga am momon ko sa bop ci cosaan ñëw ñew dañ koy nangu. Mm-hmm. dañ koy dañ koy teglo loxo ko indi. bi ci topp mooy lan mal gouvernance fu mbooloo nekk maandu war koo doxal ak yiw ay nit di ko exploité loolu aussi dina jir lan rébellion beneen mooy jëfandikoo doole foo war a jëfandikoo xel nga jëfandikoo doole pour régler benn problème yii boo ko boo ko dajalee moom ci la rébellion di juddoo léegi nag buñ ko rébellion nag bu xase ba am ngànnaay yi ñu wut luñ jàpp ni buñ ko utee mu mën a mu mën a leen dimbali. danañ ko ut bokk na ci nganaay yu nag terroriste irhab waaw bokk na ci nganaay yi li wax irhab waaw te mooy di di tiital nit ñi ci wax ak ci jëf ak ci melokaan ak ci façon yu xalaat bokk na ca rey ak façon bu mën a reyee bokk na ca xaru bokk na ca këfaate bokk na ca bokk na ca bokk na ca lu bëree bëri bëri bëri kon man su ma doon tënk mhm. noonu laa waxee léegi nag ñi koy mbubboo nag mhm. bëri nañ fi mhm. bon jombul bi ne ba ci biir danañ am ay yu ñu joxe yoo xam ne ba pare yow di nga mën a seet fu la neex nga kole ko fa donc loolu daal la mën a duggee ci waxtaan bi incha allah. Eh, jërëjëf euh, imaam Cheybatou euh, Ndiaye imaam bu ñu la déggee euh, jox nga ñuy yow it comme que muqaddima wane it thème bi am na solo eh, yaatu na it am na lu bëri lu mu wundu mais jaar na it andi ak leeral leeral gi mooy lu tax ñu askanale ko jihaad te jihaad ci lislaam doon ponk bu fondement boo xam bu tegu ci yoon la bu ñu reconnaître bu ñu d'accord ñu jël loo xam ne soo ko seetee dara baaxut ca ci li fes ak ci li nëbbu mm-hmm. ñu laxas ko lislaam ñun en tant que ay musulman ñu nangu ko di ko waxee eh, kon am am nañ mbégte trop bi nga dikkee tas i xata maanaam korise lu jaaduwul benn ñaareel ba mooy boo taxawee ci côté boobu sax da nga fekk ne ay benn kuréel du ko décréter. Mhm. moment boo xam ne Cheikh Tidiane bi tey ko yore wala Ahmed Li wala Saybatu Ndiaye xëy na décréter jihaad demee noonu ci li njàng ci lislaam dafa am ñu koy décréter état lay doon te dafa am ay point yu ñu dem ba tax ñu yegg ci mën ko taxaw. Mhm. wax nga ne li ko indi yëpp nag euh, wala yasaaluuna yuqaatiluunakum. Mhm. yooyu suñu borom waxoon ñi comme ba Ahmed Aaron Ahmed li waxee woon ci ne. Eh, muhammadu rasulullahi wala zina maahaw jooju mhm. nga wax ne am na beneen aaye waaye mhm. walaa yasaaluuna yuqaatiluunakum jooju suñ boroom waxoon ñi duñ dañ di xeex ak yéen mhm. di xeex ak yéen ba jëlee leen ci li ngeen nekk waaye duñ ko man mel na ci loolu lañ nekk ak ñun d'accord eh, yow jëlaguñ ñëpp mais ñi ngi récupérer nit ñi par benn nag nga ne eh, loolu nga ne baat bi nag buñ ko jëlee yow doo ko dugal foofu leeralal nga ñu ko ñoo leen di tuddee nga ne kon ñooñu bu fekkee am na noo leen mën a tuddee ci baat bi wér ci li arab mooy ay mutamaridoon lañ mhm. ñooñu dañoo doon ay nit ñoo xam ne dañoo rébellion mhm. xëy ne dafa am lu leen tax a jóg ñuy xeex ñu xëy cuub lislaam tàbbal ko ca mhm. takkal ko ne mais lislaam amut ak ñoom benn silla nga ne jomb na bu ñëwee ci baatu rébellion li koy faral di indi euh, kuñ perdal ay xàqam mu jog di ko laaj ku dana koy waral kuñ jël alalam dana ko waral mal gouvernance dana ko waral euh, ku dikkit imposé dooleem dana koy waral yooyu yëpp nag bu amee ba tax benn guréel taxaw jóg rébellion doon ay mutamari doon ñoom it dañuy gis ne euh, dañuy fay kuy fay loo am rek man nga koo fayoo fetal laa am jaasi laa am nangam rey nit fëkk nit moo indi li xew nii kon mel na ni wax dëgg yàlla loolu leer na trop suñu bopp tey euh, Ahmed Aaron Ahmed Li dama lay jaawale Ahmed Aaron <laughs> Euh, Cheikh Ahmed ñu ñëw ci beneen tomb bi gannaaw bu ñu gisee li xew actuellement ci àddina bi nga xam ne daanaka foo dem kuréel yooyu ña nga fa lil asafi sadid mu doon lu métti trop comme ni ko Cheikh Say ba waxee ñu fexe ba lam ba cuubal ñu ko ci bubam lislaam féetalee ñu ko ñun ndax Afrique gi ñuy dund tey dafa mujj doon place boo xam ne fi la ñuy préparé terroriste yi di leen di leen envoyé ci àddina bi Euh, man it bala maa ñëw ci laaj boobu am na ma bëgg a soft euh, tuuti rek ci waxu al oustaz Cheyba li nga wax dëgg la ànd naa ci niveau bi ñuy waxee mu mu nekk niveau boo xam ne dafa dëppoog ñi ñuy déglu ndax rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la wax ne umir na an nukallima naasa ala qadri uqulihim dañoo digal ñun yonente ñu wax ak nit ñi lu tolloog seeni xel wa an nunzila nnaasa ala manazilim seeni tolluwaay ñu jox leen ko loolu benn pédagogie la boo xam ne képp ko ci tollu lislaam da nga ko respecté dëgg la ànd naag yow ci loolu wante bu ñëwee ci ñi ngay tudd rébellion dëgg la mën na nekk rébellion la wante dafa am benn mbir mu ci wala Euh, aki moom mooy euh, mooy ixtikaar ah hmm. moom mooy ah ñoo jël jël aki moom ah. ñu benn xalaat benn affaire gardaayoo benn xalaat hmm. boo xoolee suñu wax yi xalaat boobu la ñuy dajee hmm. te ñun fi mu nekk ñun rek ñoo ko mën a dajji ndax xam nañu lu ne ci biir dëgg ndax nit pour nga euh, doyadal fa mu fa mu fa mu cësluwaayam pour def la muy def maanaam tabria di ko justifier foofu ngay dajji moo tax ñu indi histoire bi. te bëgg naa ñu koy répété bés bu ne ndax nit ñi dëgg la xëy na même bu fekkee jànguñ booy booy baamtu dara di ko wax ci ci anam bu simple bu yàgg dañ ko déglu ndax kenn bëggul jël ci ay naafeq kenn jël ci ay naafeq te dañoo nekk ci diine nekk ci diine kon nag il faut que nit ñi ñu leen ci laayee biir di leen wax ne lii am na képp koo xam ne bëgg nga def musiba ci biir diine. ci xalaatu ñooñee ngay ngay jëlee. Mhm. d'accord dafa am ay bindkat yoo xam ne nguur ay nguur moom moo taxoon ñu def ko. Isa ibnu Maryam dañ ko dañ ko rey ngir loolu dañ ko bëggoon a rey yàlla yëkkati ko ngir loolu ay naafeq ñoo ko bëggoon rey yàgg na ci diine kon nag julit ñi ñi ñiy jaamu yàlla war nañoo xam loolu saay-saay bu ñëw dugg ci toolug diine du xalaat yu mag yi ngay jël di mais xalaat ya gën a taq suuf ya gën a xajam ngay jël xalaat yooyu nag ñi jàng. dañ ko leeral nit ñi nan la nan la bindoo kon euh, moo tax ma ma indee noonu hmm. euh, comme que ñun africains yi comme ni nga ko laajee léegi hmm. am na ñu naan ay tuubeen lañu waan lislaam yàgg na fi lislaam yàgg na fi loolu maa ngi fàttaliku Cheikh Moustapha Guèye na ko wax bu baax a baax euh, tuubeen lanu ñu ah tuubeen aussi arab yu bëri ñu ñoo leen njëkk a tuub ndax ci deuxième siècle wala huitième siècle islam yi ngi wàcc ci sixième siècle septième huitième ci empire Ghana si lañu ñu njëkk euh, faagaagal empire Xayamagan euh, euh, mooy dernier buur bu mujjee bu empire gana ci njiital Wardjaabi taaliba yi nekkoon daara yi nekkoon jamono jooju Tëkruur faagaagal leen ñu nekk ci ñu nekk ci ñu ñu jiital l'islam huitième neuvième dixième onzième empire Mali soog a ñëw loolu yàgg na. Mhm. ci suñu gox bii la. empire Mali ñëw empire Congaay ñëw euh, almaami yi ñëw ba ci ci dix-huitième siècle si la tubaab bi ñëw ak suñu daara yi tey kon yàgg nañ ci lislaam xëy na suñu gox bi ñu nekk boo gisee yàlla musal leen ndax am na benn tubaab bu naan buy analyser ci seen analyse mu ne Sénégal di dinañ fa yéex a dugg ndax booru fuute bi. l'islam da leen fa jiitu lu yàgg waaw maanaam du ñu neex a ñooñu yëy seen bopp ba ba ba leen dara mais Afrique daa yaatu am na euh, barab yoo xam ne dafa yaatu te li ñu jot am ci lislaam ñooñu amuñu ko ñooñu kon foofu la seeni xalaat yi di di di tase ba ci Nigéria Burkina Faso yenn gox yi ci Mali fépp fépp fépp kon euh, Afrique dafa am benn xasiya ne spécificité bu nekk biir Afrique mooy dafa yaatu. rébellion daf fi neex a am euh, def ndax da dugg ci désert bi ab soldat mënu la dàqanteeg yow fii ak euh, ab weer nga nga tas ci nga nga mel ni ab till. moo tax li nga laaj léegi ci ci àll bi mën na nekk base bu garaaw base bu garaaw ci ci ci euh, ci rébellion bul ma jël sa ci ma jël sa terme bi nga wax ci rëbe rëbelu rëbelu lislaam yi ormal wax dëgg yàlla jihaad ndax yàlla ñun liñ jàng ci ci alquran waxuñu euh, euh, walladina jahadu fii na la nahdiyannahum subulana allahu akbar ah. wala walladina jahadu fii na yàlla ne ñi ngay ñiy jihaad jëm ci man la nahdiyannahum wallahi dinaa leen jubal ci samay yoon yu màgg yi hmm. ndax la inna allaha la ma al muxsinin yàlla daa ànd rafetal man ñay parfaire hmm. ñay gën rafetal yow yaa ngi gën a ñaawal bokkoo ci yi nga ne nga ah. <laughs> <laughs> ah, donc effectivement mais doo am vocabulaire boo xam ne mën nga koo jëfandikoo mais comme Oustaz Cheikh bi waxee hmm. mais bu ñu leen rebelle aussi waaw dina du ko mat ah, mais boobu aussi boobu dafa am problème bu ci nekk gis naa yenn oustaz yi du ko def naan dafay mel ni boo ko waxee oustaz bi tey mu ngi ci sa biir laaj bi sax hmm. justifi si biir justification hmm. ndax nañ ko layal dafa mel ni man dama koy jam dafa mel ni da ngay laayil ñii ah oui dañoo ñàkk moo tax ñuy def maanaam dafa dañoo ñàkk moo tax ñuy mbënn dem Espagne dee ci mm. géej gi dañoo ñàkk ah ñàkk moo def lu jàng ñàkk moo tax nga nga def nga naan petit mm, mm, jàngalekat warul jàngale noonu am na yeneen solution julli solution ngi fii mm-hmm. ñàkk moo tax nga war a rey si kii jël mu am naa dañoo ñàkk ñàkk moo tax ngeen war a eh, eh, eh, dóor ñi am jaal jën seen alal déedéet ñàkk am na neneen nuñ ko mën a régler lu dul ñi koy wax man dama dama contre wax jooju dommage nag am na ustaas yu bare yu jël mantiq boobu mhm. man du ci ànd tey duma ci ànd suba yaa ngi dégg wala boog boo koy wax euh, euh, maanaam toftal ko ci leneen maanaam ñàkk ngi ci mais am na leneen ñun li ñu ci yitteel moom mooy li ñu jël turu lislaam ñu naan allahu akbar di dóori bomb mhm. ndax naan euh, noonu lislaam yi dañ koy jëfandikoo ñu ngi wax wax nga ko léegi ñoom lépp loo xam ne mën na ayibal l'islam dañ ko exploité dañ naan ba muy ba muy dóor bomb daanaan allah akbar ba muy dóor na eslogan boobu day wàcc drapeau bi laa ilaaha illallaah waaw léegi nag ñooñu dañ naan dañoo jëfandikoo l'islam dañoo jëfandikoo l'islam mais doon nañu ci tous ndax loolu yàgg na ci l'islam loolu duñ ko des diñ ko di ko di ko dénigré te nag di wax nag jullit ñi nattu la comme ni mu ko waxee woon sànq bo xamne dafa nek ci diine mais nañ ci fuglu du rek ku ne allahu akbar nga ne nga ne ab ab julit la ndax ab nafiq kat cosaanam nafiq la waane dafa am lu mu bëgg lu mu bëgg def ci bir diine dinay julli dina jàng alxuraan dina lef lépp ngir jot jot jot objectif am waaw objectif bobu ben objectif bu leer la lislaam ñu ngi koy wax boo xoolee gis nga njiit li njiital l'islam moom la ñuy bëgg toujours ndax ndax saay mais Imaam Ahmed bëggoon naa ku ma ku ma gën a ku ma gën a xëccel jotaay bi mu agsi ci sama laaj. parce que ma ñëw parce que lu ma bëgg a laaj mooy. Euh, bu mën na la ndax Afrique tey. Mhm. dafa mujj nekk di base boo xam ne fii la rébellion di génnee. maa ngi ñëw. waaw euh, jëlal ma euh, jamaatu Boko Haram. waaw tansimu xaayida. harakatu tawhid. harakatu mujahidin mujahidin sababul mujahidin fii Somal. su dal ma jaysu rabb ci Ouganda. Mhm. dégg nga ñoo ñëpp ñu ngi basé wu ci biir Afrique mu doon ay kuréel yoo xam ne fen fu ne ay xalliya lañ ansaaru din fii ci Mali mu doon ay kuréel yoo xam ne ñëpp bi ismil islam la ñu tuddoo doon ay xarakatu ñu tuddee leen seen bopp ay xarakatu jihadis moo tax ma posé la question ndax Afrique dafa mujj doon sées boo xam ne fi la gaa yow di gongee ko wa dama ne du ko weddi wax naa sànq ci suñu nature géographique bu Afrique terrain la bu terrain la boo xam ne loo fi ji mën a dem parce que terrain bu maanaam euh, suhul ay ay euh, ay savane la yoo xam ne arme bu ndaw mën na la euh, fajal sa soxla te ñëpp ñu ngi investir hmm. biir Afrique hmm. Afrique ku jóg ñu xam ko ñu ñàkk ko xam ku jóg Afrique dafay investir parce que tabia Afrique moo mel noonu kon euh, day am population yoo xam ne population bi mënoo leen satisfaire ñoom ñëpp koom gi demewul noonu kon yow bu fekkee sa njaboot am na loo mën si sa njaboot am na loo xam ne mënu mënu sa njaboot bu fekkee yàlla nattoo la nga am ay rebelle ak ay agresseur du la bett njaboot yu bari xam nañu loolu ndax ñu ngi def seen kemtalaay kàttan wante ni mu demee liggéey beeg ñàkk nangam am na fu seen doole mën a yem ñooñu agresseurs yooyu di sosoo ci sa biir ci sa biir njaboot ci biir société bi nattu la ñeneen dañ leen di utiliser léegi nag buñ leen di utiliser il faut ñu jox leen nag benn euh, euh, benn cëslaay. Mhm. kon nag saay saayu naa naafeq yi. Eh. bu ñëwee dañu indi seen cëslaay tubaab yi ñooy dañ leen di jëfandikoo loolu mooy fuglu gi nga xam ne africain yi tey mm-hmm. euh, war nañ ci fuglu. gis nga boo ñëwee ba ci solution bi nga bëgg a wax am na fa benn solution boo xam ne xëy dañ ko tudd. Mm. wande tabe ay yan yàlla moo ñu nattoo loolu te day continuer yemu remu rek ci ci wàllu diine. ci wàllu économie ci wàllu lépp ay colonisation bi li ko li ko li ko li ko li ko indi lool la bés yi trait ne euh, euh, njaam gi fi nekkoon yooyu yëpp loolu la képp koo xam ne yaa ngi xeex bëgg nga am africain boo xam ne dafa la jàppale ci xeex boobu ñeen di soxla ci yu baree bare kon nag africains yi nañu xam seen nature bi bi nekk ci seen continent ak ni leen yàlla bindee ak woyof gi ñu woyof ndax ah, bu ñu fàttalee africain yàlla daf ko jox benn xaasiya maa ngi ama fàttaliku xam pati Bâ mu ngi koy tagg ndeysaan ci benn taggin bu rafet ne bu fekkee nee nañu civilisation yàlla ko yàlla yërëm mu ne bu fekkee civilisation dañu ne moom mooy dóor kële dóor kaa jël ay saaku ceebam ñun dey yàlla <laughs> musal lañu civilisation boobu ndax suñu civilisation ñun africain dafa dëppoo dafa gën a dëppoo ak civilisation diggante Habil ak Qaabil Qaabil mi nga xam ne yàlla ba mu ko nattoo mu rey mu rey mu rey seexam ba ngir poñatub àddina yàlla alak ko ñun bu fekkee am na xeetu doomu aadama yoo xam ne seen développement seen civilisation moom mooy dóor sa jàpp sa moroomu nit toroxal ko jël la mu am tabax ci ay kile africain yi seen ñàkk développement bu fekkeen ci loolu la sësu dinañ ñàkk dinañ yàgg ñàkk développé Eh, jërëjëf eh, Cheikh Ahmed li bu ñu la déggee mooy feeñalal nga ñu ne eh, lu tax Afrique nekk base boo xam ne mel na ni ci la rébellion di gongeekoo tey. Mm. wala li ñuy tuddee terrorisme. wane nga ne jombut mën na dellu ci yaatuwaayu continant bi ni mu demee. mën na dellu ci ne continant bi ñëpp dañoo daw jëm si fi. Mm. di ko xëccoo. mën na dellu it ci ne continant bii ñuy waxtaanee muy Afrique dafa mel ni dafa nekk suuf si joor loolu mbat mu mm. nekk. mën na dellu ci ñàkk mën na dellu ci ñàkk xam mën na dellu ci ñeneen ñoo xam ne it dañuy xeex lislaam laxasaayu jëm ci ñooñu mm-hmm. loolu kon jombut mooy li ñu gis tey te gis ne soo seetee fum sax ci biir Afrique doomi gox booba ñoo fa nekk soo demee si Nigéria bokku aram ci ñoom lañ bokk am ay financement yu bàyyeekoo ci bitiñ mu jaral leen jàmmaarloog ñoom boo boo demee ci ah, harakatu sababul mujaahidin ci nekk Somal ay somalien lañ juddoo fa jàngee fa màggee fa mais am lu leen dikkee gannaaw ñu taxaw jàmmaarloog la fa nekk demal ci xarakatu tawhid fi nekk fii ci Afrique sowu jant demal ci jamaata xilaafa ji nekk ci aljazair waxal luñ mel ci xalliyatu xoqbati ibnu naafi ñu nekk fii ñoom it waxal ma luñ mel ci ansaaru diin ci Mali nga gis leen ñoom it ñu nekk ci xeex boo xam ne kenn xamul jaral leen def lu kenn xamul civilisation bi gën a mag ña xam ko fii ci Tombouctou gis nga lañ ca def tey nga xam ne mu doon lu ñaaw tuddee ko turu l'islam pour dëggal li Cheikh Sayba doon wax rek mm-hmm. ku jàng l'islam doo fekk azaaru l'islam yi mel nga dem di ko tos di ko yàq mu ko ci waxal luñ mel ci Oganda euh, jay su rabb bu nekk Oganda mm-hmm. donte ay chrétien lañ mais Afrique rek moo ñu tax moo ñu tax di wax mais ñoom it ñu ngi jàmmaarloog jafa nekk di def mu mel ni ëpp si màggat la Afrique boo ko seetee fépp lay métti jombut ñun yàlla musalagum ñu wala laay am yàlla nañ ci mucc mais mucc gi du tañ ñu di ko reeteet mhm. boo waree wax ngay wax balaa yegsi xoddeeku ci bala ngaa lakkale tey Cheikh Seydou ndax euh, suñu tomb bi ñu doon laaj Cheikh Ahmed ndax Afrique dafa mujj nekk base boo xam ne ci la ñuy jëlee i terroriste di envoyé ci àddina bi hmm. waaw jërëjëf Cheikh euh, laajaat nga laaj bu am solo hmm. xam nga Olof Njaay wax ni hmm. bala nga di naam ne bala ngay nekk base buy départ. na fekk nga am cëslaay loo amee base bi ba pare. yooyu dafa jar bàyyi xel. yi nga fi lim duma ci jaraat Somalie Mali Ouganda Nigéria ak yafa yafa jóg ak lu moo doon du ma jaaraat ci tur mm-hmm. mais bu ñu waxee madumun bi dina maanaam continue bi. dinañ xam fa lañ fan lañ jëm xam nga réew mu nekk ak zone bu nekk buñ leen bàyyi seen bopp ñu dellu ci seeni cosaan dellu ci seeni pas-pas ak seen ngëm-ngëm seen biir danañ ko war a mën a régler ba mu yëm seen biir bu ñu waxante dëgg mboolem dëkk ba fi gis mu takk ñu ngi fi tudd ñëpp bu fekkoon ni ñoomu neen la ñu dellu ci seen bopp dellu ci li ñu am dellu ci li ñu moom dellu ci seen i ngëm-ngëm seen problème danañ ko mën a régler sans pour autant mu am leneen luy jóge ci àll ba pour ñëw xamu ko. man boo wax foofu lay waxe kon Afrique balaa muy nekk base buy joxe wala muy nekk luy exporter kon dafa fekk ne am lu mu loo xamante ni moomu ko la muy importer nag te moomu ko mooy lii Ahmed commencé woon te ma doon ko wax mooy li jóge ci.

te duñ ko solale bu yàggee nag ba gaa yi fippu ñi nga xamante ni maanaam ay prédateurs économiques lañ saar mooy maanaam ay ay ay rab la yoo xam ne dañuy gis lu ñu lu ñu rëbb yooyu la ñuy xaar pour sànni fa seen seen seen seen meb pour mën faa dugg kon problème bi amoon na fi gaa mais nag ña waroon saytu mooy njiit réew yi parce que njiit dafa am solo ab locomotive bopp saxaar bu paane rek comme yi yep, day daal di pan man damay gis ne li fi indi jafe-jafe bi ñun la d'accord len mais li ko hmm. ba mu àgg ko ci la responsabilité ñu dal hmm. man dama cause hmm. complicité ak ak boo xam ne lenn ci njiitu réew yi africain yi am nañ ko ak Occident moo moo yombal moo yombalal pexe yooyu ñu mën ko ñëw sànni ko suñu biir complicité complicité nag ba ca gën a euh, garaaw te nit ñu di ko bàyyi xel mooy suñu njiit réew yi nga xamante ni dañ jël nationalité Occident boo nekkee fii jël nationalité Euh, France wala Amérique wala Angleterre wala nangam nangam nangam yow bo rax rax rax nga ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersu kooku su boobaa di nga am doof faiblesse bi koo xamante ni ñële la ñu bëgg jaar ca am ko ci yow dafay yomb lool nga nekk yow benn boo xam ne yaa ngi yaa ngi yaa ngi faagaagal sa sa lan sa askan kooku kooku benn la beneen bi ci topp mooy réere mooy jaxlu bi ma waxoon sànq réere wala boog di jéem a li nga xam ne ñoom ñoo koy nas nga xam ne boo ko seetee muy doxalin ak saytuwin woo xamante ni dañ koy tuddee ay termes géopolitique mondial wañ tuddee ko maanaam euh, ordre yooyu nga xam ne ñoom ñoo ko jël créé ko nga xam ne boo ko seetee ci seen doxalin ñoom ci macro bi ma la waxoon sànq buñ naan nouvel ordre mondial buñ koy créé ñoom désordre la lañuy créé <laughs> man dañ problème ñoom mais ñoom ba la faj dañ lay dañ lay fekk yow ñu ba nga ne dañ lay am ko du mais dañ koy ngir lan fi man exemple bi yomb na xoolal li fi boo jëlee euh, ñu jël li gën a li nga xamante ni maanaam ci doole la tegoon Libi. Libi. Égypte. Mhm. ci Afrique lañ bokk. dëgg Kadhafi mhm. jiite na mhm. nañu woon dictateur la wala nangam nangam mais quarante yi yëpp ñeent fukki at yoo xamante ni libyens yi ñu ngi lekk. ñu ngi naan ñu ngi tukki ñu ngi dem ñu ngi ñëw fay ñu ndox tabax na sax ay dëkk yoo xamante ni daf leen ko jox ñu kii pendant quarante ans. problème ba su fa mais bañ demee boobu bu faj idi problème dañoo ñëw am luñ fa am luñ fa def tey bañ ko bañ ko fa jëlee ak tey loo gis. gën a bon gën gis. kon ñoom créé nañ benn désordre pour ne dañuy ne ordre seen ordre yooyu yombal xam bi jëm kooku kooku exemple la. Mhm. yow Égypte nga nekkoon. Mhm. yow lañ nekk Égypte lépp nit ñaa ngi lekk ñu nga donte am na ay xiiti xiiti. Mhm. ñu def mais àgguloon fenn fi mais bañ ci bañ fa duggee tey ana Égypte. demal Algérie demal feneen demal feneen kon lii boo ko xoolee fii noonu lay demee boo génnaatee aussi li nekk fi mooy génnaat soo demee ci biti boo demee Syrie ak la ko wër lépp. Oh, soo demee loo yow mal xiyaama la moom. <laughs> loo lu ndaw ndaw maanaam créé benn affaire bu ndaw lu ñu tuddee Daesh. Mhm. boo leen ko di compter ay ay lu ñu néew lañ matuñu matuñu matuñu matuñu maanaam. ñaari million wala wala nangam. mu créé affaire boo xamante ni. ba ba ba faj ga ñëwee. ñu ngi fay rey lu mat huit cent mille personnes di fa toj lu toll ci junni jàkka xale yaa ngay faatu ñëpp ngay faatu an problème ba li moo am foofu soo demaatee feneen Mali gi ak feneen ak feneen feneen lu mel noonu moo fa am pour gën a leeralal encore ci ci ci loolu seex pour wane ni ñoom ñooy créé yow ba ñu nekk Égypte. 1990. ci la Saddam Hussein dem attaqué Koweït. waaw ci lu wér. loo xam ne américains yi ñoo ko nas. di ko dellu ci taarix bi. Mhm. ñoo ko nas bu mu ne nasar ñu dugal ko. ba mu demee ba dugg Koweït ñu profité ci. woo naar yëpp ànd ak ñoom ànd ak àddina bi ne léegi comme que léegi lii désordre la na ñëw réglé ko ñaata nit dafa dee ñaata nit lañ rey kon boo xoolee américains yi li ñu dépensé ci guerre golfe bi bu doon dañoo bëgg a def ngir ngir yàlla rek wala ngir humanisme yi réglé woon na problème Afrique yëpp ak leen ci pays asiatique yi. nga xam ne def nañ ko fa France gii kazaalika li mu def Libye gi ak feneen ak feneen feneen. duñu loon Afrique ba mu jeex. kon yooyu il faut ñu nang ko nang ko lan nang ko nang ko xam. nang ko bàyyi nang ko bàyyi xel man jàpp loolu la ñu war a kii bu ko defee nag nañu nañu am njiitu africain yi nañu dellu xam ni kenn lañ ci population. jéem a bañ nangu lu ñëw jox la ku ñuy consommer di dem jig saa rek tiital la. xam nga tey ñun ñu toog fii ci ci ci fii yaakaar naa ni HLM HLM 4 la defa HLM 1 mhm. tey euh, moom naa bi ñu nekk nii àla sali misal nen mooy Sénégal ñu toog moom yàgg rek ay gaa ñoo seen wul su xaalis ku neñ jox la euh, téeméer million ba pare ñaan nag mooy na musiba boo xamante ni dugg na ci biir euh, dëkk bi fekk ñun fii mooy fii mooy Sénégal mais li ñu war mooy dëkk yi mhm. doo leen nga doo leen daw ah doo leen daw dem fa ñun xamuñ fi nga waaye doo leen yow nga tëb di kët kët bul nangu loolu mhm. ki lay tiital kay dog leen daw fan lañ jëm lan moo xew. ak lim lay dawloo lan la. ak may dawloo lan la ak faa jëm. mais doo leen daw nga tëb di xamu fa jëm. ñi ñi nangu yu mel noonu. loolu mooy problème bi kon suñu njiiti njiiti africain yi seen bopp nañ delluwaat xoolaat seen bopp. mbaa ngi kontaan trop semaine passée président Nigéria bi bi ñu demee fële Ghana. mi ngi wax ni dootuñu nagooti CEDEAO nañ jóg ngemb dootu fi bàyyiti kenn koo xam ne dafay jël ay mandat di ko tegale di di di kii dinañ ko xeex. yooyu nag moo war a tas bu yàggee nit ñi xam ni ñu yor lan la su ko defee léegi problème mu terrorisme bi ñu wax ni dafay daal di éradiquer wu fii complètement ñun ñu leen mën a la suñu bopp eh, jërëjëf euh, Cheikh ba bu ñu la déggee mooy feeñal nga ne euh, Afrique kuy importe lëf dafay fekk nga mën koo defar mel na ni kon Afrique dañ koy indil mbir ba pare mel ni moo koy importé mais dañoo nekk ci gannaawam la imam ali doon wax gars yi kalimatu xaqin yuraadu bihil baatil dafay feeñ ci luñ mel mbir mi dañ koy tuddee na Shayba moo koy importé mais dafa am ñu ne ci gannaaw Shayba mais africains yi mënuñ mënuñ importé terrorisme kon dafa am ay loxo yu nekk ci biti yu laxasu ci seen gannaaw formé li formé wu ci seen dëkk yooyu ñu tuddee ne Afrique la ñuy jógee mais ñoom du ñoom dañ leen cee dugal hmm. feeñal nga nit ne àddina bi li Cheikh Kuski daa wax nifaaqu dawli fa mel ni moo am. Mhm, mhm. maanaam euh, naafeq boo xam ne dafa àddina bi yëpp. ñu bokk di nasandoo loo xam ne day niru dëgg te fekk caaxaan la. Mhm, loolu mel ni ne ne moom la ñu tuddee seen nouvel ordre mondial yu bees yi nga xam ne lañ cay nas soo ko déggoo day mel ni lu defar. mais la ci biir yëpp yàq ko tax a jóg. nga ne loolu it dañu cee dugal ndëgg sarax la goo xam ne yàlla xam fu ñu cay génnee. nga feeñal ba tey ne bokk na ci euh, biñ mënta ñàkk a lenn ci suñ njiiti réew yi nga xam ne boo jiitee da ngay am ñaari nationalisme mm. sénégalais nga américain nga sénégalais nga français nga sénégalais nga grande bretagne mm. su defee ka nga jël nationalisme da ngay jàpp ne faaw nga nekkal ko fi mm. ndax ab doomam nga la lay xoolee dana am yoo xam ne boo ko soxlaa ci yow la koy jaar ngeen réglé ko ci biir kenn du yëg loolu it nga ne benn la nga feeñal ñi buñ jëli xëcc ko mu gën a jege li xew nga bi fi toog na fa quarante ans nit ñuy dund bi salaamin wa amaanin mm-hmm. lépp mu gàddul leen ko ñu ne régime dictature dañ ko fee bëgg a jëlee indi fi li ñu tuddee du démocratie dugg fa ak nañ fa nañ ko fa bëgg a jëlee sax moo wuteeg démocratie ndax démocratie dañ ku ñu élire ci carte lay doon. Mm-hmm, mm-hmm. ñoom ñu dikk forcé bu ñëwee ak doole. attaqué ko rey ko sànni ko ci mbedd bi ba léegi rey rey Kadhafi googu moo fa nekk ña nga rey nii ci mbedd bi su gauche ak droite. Mm-hmm. ba léegi la fa nekkoon kon moo gën. mënoon nañ ko fa bàyyi. booba nit ñi xiifuñ maruñ courant manqué wul ndox manqué wul ñëpp nga xiif ñëpp a ngi manqué lay tawri ci ay bakkan kenn xamul luñ toll ta ñi ko def tey ne nañ ñoo ñooy re addina bi waxal luñ mel ci Égypte ayama kuna taali bañ fa nekkee ay étudiant d' accord réew mu ne dana am ay ay jafe-jafe mhm, mais li xew ni amutoon mhm. da nga daan dund normal mhm. di dem jàngi dem ak dikk doo dégg kuñ rey doo dégg dara gis nga tey ñu ngi ci guerre bu kenn xamut xoolal li xew Seyna El Basri barki dem boo jaay la leen seen militaires yi tim di leen gëq ay bomb yi kenn xamut ci ci réew xam ne kenn mënta wax demee noonu eh, loolu yëpp nga gis nekkoon loxoy loxo yu bàyyeeku ci biti moo ci bi mm-hmm. wax nga lu mel noonu ci Syrie xëy formé benn groupe bu ñu tuddee dange mu mel ni Daesh dafa mel ni tey moo ëpp doole addina bi yëpp états mënu ci dara Syrie mënu ci dara ba bu seen ñu ne mouvement dange te euh, su fekkee sama fàttaliku naxuma euh, ñoom bi ñuy formé Daesh dañoo waxoon ne Sayna El Masri ci lañ ko bëgg a yóbbu. te mm-hmm. lu taxoon ñu bëggoon ko fa yóbbu mooy booba Mohamed Morsi moo ñëw ci xel moo ñëw ci mm-hmm. Égypte. ñu xam ne mursi ñu nañ xalaat yi mu yore xalaati islam la mhm. bu fi toogee day dekk koo xam ne Israël dootuñu am jàmm mhm. ñu ne kon nañ ko langal loo xam ne su boobaa du ko tal mhm. finalement ñu gis ne far coup d'état na ñu jaratu ko loolu tax Daesh ñu yóbbu ko Irak mais fii lañ ko doon a formé mais kon nga gis ne kon Daesh mbir la moo xam ne dañ ko formé pour xeexee ko l'islam mais li métti nag te ñun ñëpp ñu war ko métti mooy ñun en tant que ay musulman xamuñ loolu xoolal loolu ci la ñu naxee dugal ñu ci eh, eh, Syrie mhm. danaa ko wax toujours ne man Bacharul Assad mhm. euh, d' accord uma ak moom mhm. mais d' accord naa ci position bi mu taxaw parce que ñoom tubaab bi ñoo wax ne àddina bi kuñ ci kuñ ku ñuy daane ci xiraafaam nañ ko daane par carte oui mais pourquoi moom nanguñ ko daane pour carte dikk gémb ay gars yi leen kaa leen attaqué ko du yoon wut ay opposant kay ñu dem dëkk nekk ba opposé ko buñ ko fa daanee baax na waaye xëy gàddu ay ngànnaay na kullu ma uxisa bil quwa fala tarudduha illa bil quwa dëgg la nga ne loola doole imposé dara du ko fi jëlee lu doole basaar ci loolu la nekk doole lañ ko imposé mu jëfandikoo doole kon mel na ni eh, mbir mi eh, ñun Occident moo ñuy xëy rek jàpp ñi xam kan lañ ci mucc tey c'est Ahmed ma ñëw ci beneen tomb ndax nit mën naa layal kay gàddu ay ay gànnaay dugg ci jàkka explosé ko wala dugg ci benn église explosé ko wala fekk ay nit fu ñu liggéeyee ci benn usine nga explosé ko ndax loolu nit mën na koo layal ci turu l'islam bil qiyaas bu ñu ko natteeg li xew Burkina Faso yi nga xam moom xew Burkina Faso barki dem boo njaay nga xam ne kenn xamul nu mu demee en tant que mhm. ñun africain loolu nañu ko layalee waaw la layal wala la laayeel <laughs> dama dégg loolu Saalum Saalum la sof nañ sof nañ ko léegi. man am Saalum Saalum la ah. euh, euh, sof nañ ko léegi naa ne am na ay oustaz yu may déglu. Ah. parce que mbir aussi bu jaxasoo. jam jàngalekat yi léeg lu ñuy waxee. comme ni ni may wax léegi ci laayel gi. pauvreté nanga am lu la naq rek ñoom seen ñoom seen moo tax ñuy def yenn jëf yi. Hmm. mais am na beneen laay yi. Hmm. boo xam ne moom laa bëgg comme bi wax nañ ko am na beneen laay yi. Hmm. boo xam ne ñoom ci seen bopp boo leen dégloo euh, lañ koy laajal dañu ne ñoom dañoo bëgg a libéré dañoo bëgg a libéré euh, jullit ñi ci euh, li ñu fi tudd léegi. Mm. ci ci ci colonialisme. Mm. benn laay la. benn laay la ci laay benn benn <laughs> dañoo ñàkk. <laughs> lislaam bi fi ne du l'islamu dëgg bi mooy bi mooy pire ba ca des dañoo bëgg libéré nit ñi ci. nguur yi euh, nguuru euh, nguur yi fi tudd léegi. Hmm. ñuy exploité man sama tontu foofu moom mooy. Hmm. di euh, bàyyi xel bàyyi xel ci xalaatin yi. parce que nit ki ñu ngi koy jàppe ci xalaatin. nit ki ñu ngi koy convaincre ci xalaatin doomu aadama noonu la mel. mooy waar ma waar la ba nga waaru. Hmm. ci waarin yooyu. yooyu nag la ñu man dama naan damay joxe benn exemple ci ci suñu tradition orale. Euh, suñu li ñuy waxee africain am nañu benn façon ay léebin yu ñuy yu ñuy dañu ne jaan jaan mënul gas maa ne jaan joo gis am na pax te mënta gas te gas day nangu paxu jàmbur jaan mënul gas te jaan day am pax fan la ko jëlee day dóor borom pax mi nangu bosam <laughs> mooy exemple seytaan seytaan hmm. boo gisee alquran naan ko laa inna kayda shaytaan kaana daifa ñu naan seytaan dafa bari doole alquran contraire la wax ku néewi eh, ay pexeem boo ko xamee lu woy lu lu lu di la mais bi charte nga xam ko kon ñun dañoo jébbalu seytaane maanaam ñàkk dégg hmm. dégg ci exemple dañu ne jaan bu fekkente ne moom day day eh, jàpp bàyyi may di eh, màtt leen ñu daw mu gën seen pax ñu ne am na benn benn bàyyi ma boo xam ne moom kenn du jël paxam. mooy hmm. sikoor sikkoor sikkoor benn jaan benn bàyyi ma la boo xam ne moom day dagg boppu jaan moom boppu jaan lay ndekkee ah. <laughs> mu ne comme que jaan mu ne waa njabootam comme que jaan dafay nangu pax yi ñun boppu jaan la ñu ah, kon bu xëyee day rëbb jaan su ko defee jaan yëpp màng amul jaan ju ko ju koy jege. sikóor nii la amee jàmm ci musibab jaan exemple boobu dañ koy joxe dañ koy jox boo koy dëppaleeg diine diine daf la jox attitude bu mel noonu aaya bi nga jàng léegi wala yazaaluuna yuqaatilunakum fi diinikum xata wala yuqaatilunakum an diinikum in istataaw du ñu deñ ñoom saay-saay seeg yéeféer yeeg naafeq yi di xeex seen diine ngir génn seen di bu fekkee mën nañ ko waaw lee du deñ ilaa yawmul qiyaam yow kon lan ma war a nekk si attitude ci kooku koo xam ne moom da lay fàdd nee na sa deret lay dundee yow nga féete di daw kese ndax doo jël jikkoy sikóor jéem ko lekk mhm. jaamaar loog ñoom islaam loolu la jàngale yaa ngi dégg dañu ne tooñ dafa xaraam mhm. wande nangu ñu lay tooñ nga ne yàcc dafa xaraam tooñ dafa xaram kii euh, waa ji tey tooñ la nga ne yàcc fayoo ngir ragal dafa xaram fayu dafa nekk ci alqo di ci ci islaam mhm. nit ñi dañu dañuy islaam dafa yàgg tàggat julit ñi ci ak fayu du ko alquran di waxee wa fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab xam leen ne kat ci fayu ci la jàmm nekk bu fekkee yow bàqaar nga boo xam ne buñ la tooñee doo fayu ka lay tooñ dootul bàyyi mukk

du ma bu ma bu ma rab bu ma rab euh, fàddee du ma nangu beneen rab ñëw di ma sowe ñoom rab lañu colonisation bi ay rab lañu ñoom ñëpp ay shayatin lañu baynal kaafiri wal munaafiq rab jàpp la au lieu nga dem ñaan lu mais nga dellu ci rab yi ñu lay teqali jox la benn rab musiba rek la yokk. yokk yokk xar mi kawar la rek. wala jëlal benn exemple. yàlla euh, euh, euh, nattoo la nga am nga am agresseur ci sa biir kër benn bés agresse ñu song la agresseur bi ne moom moo lay moom mooy xeex ak ñi la song nga jox ko nga jox ko njiit li mu mu xeex ak ñoom bës bu gañee mooy nekk boroom kër gi ok kenn mënu ci dara kon ñoom amuñu benn légitimité ci xeex ak nit ñi seen naqar comme ni nga ko waxee léegi si njaal benn hmm. jihaat dafa am ay yoon dañ leen dañoo sant jullit ñuy fayu mais ci ay yoon xam dafa ci mais ci ab rébellion islam musula nangu ku nekk di fune taal fu ne pour fayu mooy motax anarchie bi am kon nak tabri a manam maanaam justification bobu mënees su ko nangu kon lepp lo xam ñom ñoom activé nañ ko ben mu ñak wala muy dañuy fayal jullit ñi wala dañuy sukkandiku ci benn khalatul islam borom xam-xam yi war nañ ko dajji. Hmm. mu bañ am benn fondement. boo leen di topp day gis dañuy am kii yu baree bare ay paramètres yoo xam ne dañ ciy mën a toog pour ñu nangul leen donc ay rab lañu yoo xam ne euh, euh, xeex bi ñuy xeex ay noon la ñuy xeexal ñoom it ay noon lañu ñoo yem d'accord wax nga léegi ci problème colonisation nattu la yàgg am ci àddina bu ñu fàtte bi yàlla sàkkee euh, àddina ba léegi. الصراع بين الحق والباطل ديغنت خيخ ديغنت فنك دغ دغ اك لول دغ لي لي دغ غاني لي لي دغ فن غاني شين شيخ دا نكو واخ يال نكو يالا ييرم مون بوس بو غاني بوس بو دوري نين بول فوك ني جيخنا دالال نغاكو با توك سي بيرو فن دمال بريباري وات دينا بيتر نيكو دوكات واو بوغون واخام جوجو دا فورو دا دمال بريباري دينا نيوات سي بنين انام غا مانا خيخات اك موم الصراع بين الحق والباطل ديغنتي لو فري لو فو سين بري داي كونت الى يوم القيامه كنا نيون نانيو خامي اهل الحق واهل الباطل لول موي نيون سونو رول ديكو ديكو فوغلو دوما ادمي آه، آه، آه، خامكو تي لولو ا ا تي واو تي ا تي لول لاي واخ تي بالو تبرئه maanaam justification amul benn justification xam ne boom ñoom mën nañ koo amul lay am mënuñu ko laayil mhm. te ñi leen di jéem a laayil aussi ñun dañu leen di bàyyilal xel ci laay yooyu parce que leen jox doole ñi kat wax nañu dëgg ndax lii am na ne mais solution bi du nii ndax bu ñu fàttee bu ñu delloo ci alquranul karim ne naa la lii eh, nattu la boo xam ne waxuma jamono rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mais ci yonent yëpp dafa jaar dañu ne naafeq yi ñu ngi woon ci kana ci kana ci biir étu ka rasulullaay ñu nga fa ah wi man xawlaka min al madinati munafiqun wa min al aarabi munafiqun laa taalamu allahu taalamu sa nuadibuhu maratayn xamal ne kat ñi ñi dëkk ba madina ak ak waa kaw-kaw yi am nay naafeq yu nekk ci sa boor xamoo leen man xam naa leen wa sa nuadibuhum maratayn dinaa leen dinaa leen mbugal àddina ak alaxira rasulaay ak yërmandeem daana bu kenn deewoon si ñoom rasulaay ne waa comme que xaaral defal ko istigfaar ndax man ana rasulu rahma rasulaay def ay istigfaaram ba noppi yàlla ne ko asaba an istagfar lahum istagfarta lahum sabaina marra aw lam tastagfir lahum lan yagfir allahu lahum moo xam boo leen defoon istigfaar juróom-ñaar fukki yoon ñoom naa yàlla du leen baal mukk wande paradoxe bi nekk ci aaya alquran yooyu mooy yàlla mësul jox ndigal rasulaay na leen génne loolu doy waar la man ma ne booy sama njàngat dama ne dafa mel ni yàlla nattoo la ab agresseur bu ko génne yàlla nag koo réew mais agré bu leen génne def nañ li ñaan apatride boo leen defee apatride maanaam jël seen nationalité dañuy nekkaat ay rébellion feneen am na ñu ko def ci yenn dëkk lislaam yi ba Sénégal gii am na ñu ci fat ci ak ñaan gu rëy defe naa américains yi ñoo ko ñaan Sénégal ñu fàttaleen fi ndax mën ci ñoom dara wante dëkk yi ko def defuñu lislaam ndax seeni seeni euh, kii lañu seeni doom lañu seeni musiba lañu war nañ leen euh, kile donc islam mosula jàngale lool nu ñu mënti mel mm. dañu leen war a fat def ci suñu kemt lay kàttan ba du ñu wàll seen musiba bi keneen mm. lii mënul nekk mënul nekk benn tabria kon nag nattu la bu nekk ci biir diine niñ koy niñ koy jaamaarloo nag mooy bañ a teggi sa loxo bu dee bu dee jëflanteeg ñoom ci wàllu wàllu euh, xeex acca bu dee ci wàllu wax bu dee ci wàllu xalaatin noonu la ay euh, jërëjëf euh, imaam Ahmed li imam bu ñu la déggee mooy mm-hmm. feeñalal nga ñu ne li xew ci àddina bi tey nga xam ne dangay gis ñu takk ay bomb dugg ci jàkka taal ko fa wala ñu dem ci usine wala ñu dem ci benn église wala ñu dem feneen mm-hmm. surtout li xew barki de mboy ndjay fi ci capital Burkina Faso muy Wagadugu wax nga ne amul lay ci l'islam ak kuko man di jema a layalit solal ko ciub ko ciubul l'islam sa xalaatu bopp nga wax me du lislaam mhm. eh, feñal nga amna lay yu ñuy joxe mais d'accord ci yaakaar naa du yow ya ci ñàkk mhm. d'accord wané né dafa ñii xañ ne doonuñu ay julit lañ leen di atté wala dañu lang ak ay noni julit wala régime bi fi nek du régime l'islam dañu war régime l'islam ba tax ñuy def luñ mel mais lolé parce que l'islam jàngalewul fenn nag ci li ma xam man kenn tooñ duma ñëpp <laughs> jàngalewul ko fenn Cheikh Tidiane bi tey tooñ lañ nga sanctionné Ahmed Aar Ahmed Lis sanctionné Saybatu Ndiaye lu ciy seen yoon jàngalewul fenn et sax ba si l'islam jàngalee dafa am lu ñuy sanctionné dafa am ko ko war a mm-hmm. mais du man mu former sama benn guru rek taxaw ne maa fi nekkal l'islam ku ku giseewul ni ma gisee dagan na ma rey la kenn doxut ko kon may na ni buñ la déggee feeñal nga ne lu fi yàgg la mm-hmm. ndax te yonent bi wane nga ne doon na dëkk ay naa naafeq boromam xamal ko na ko naa fekk lañ ñu génn àddina mu taxaw ñaanal leen. Mhm. yàlla wan ko ne ko soo leen ñaanaloon soixante-dix fois. du tax ma nangu ko. Mhm. mu xam ko mais taxul mu génn leen ma Madina. pourquoi nag ñoom nga xam ne ñoom yegguñ ci garaat boobu yegguñ ci garaatab saxaaba yegguñ ci garaatu jullit bu mat sax xëy me taxaw ne ko safaanoog ñun ci liñ bëgg wala ñun lii ñu jàpp na mooy diine ñu bëgg ko fee doxal ku ko deful fo ñu dama na ñu rey sa ñu tuur sa deret kon teewul fenn tey Cheikh Seye. Mhm. Euh, ñuy woyoo ci laaj bi. Euh, nan ndax am na lay ci lislaam eh, explosé jàkka wala église wala benn liggéeyukaay comme li xew barki dem boo njaay ci Wagadugu capitale Burkina mhm. waaw jërëjëf Cheikh damay tofal sama kàddu ci kàddu Oustaz Ahmed kooku amul lay kenn mënu koo layal ci lislaam ak foo ku mën a jaaree ak noo ko mën a indee ak noo mën a ute aw yoon ak luñ la tooñ tooñ ak lu mu naqar naqar naqar amul lay ci lislaam li may mecc rek mooy buñ nee dugg ci jàkka taal fa bomb wala dem ca fa ñuy defe nangam ak nangam nangam bu fekkoon ni ñañ cay jàpp dañuy nekk ñu dul jurit vraiment nga mën a wax mhm. mais la plupart mhm. ñay dugg ci jàkka yi di tàll ak di dem ci place yi kii ak di màbbu ay armeel ak defe nangam ay Mouhamed lañuy ñu doon kii Abdullah kii Souleymane ki kon bi may lim sànq. Hmm. lii indi rébellion bi. Hmm. bokk na ci al réer. Hmm. parce que ñooñu aussi wax dëgg yàlla doo leen ni Occident ñoo leen ñoo ñoo leen ngem leen ngem mooy ay xalaat yu tegul jàngale charia bu leer. méthode du jàng bu baaxoot waaw. ñu waar la ci ay yoon yoo xam ne da dem ba fi ñu toll nii da ngay jàpp ni lii mooy li am africains yu jóge fi dem di xeexi waaw ñooñu sëñ bi ñooñu doo wax ni Occident mën la fa yóbbu. déedéet ñu jógee Sénégal dem Syrie. ñi jógee Sénégal dem dee ci àll bi ñii dee Nigéria ñii dem nangam ñooñu da ngay wax ni da ngay wax ni Occident mën la fa yóbbu. te dëgg gin ñooñu déggin déggin ñu tegul ci yoon. basira ña leen waar ña leen waaru ci xam-xam lislaam bu leer ñoom lañu ñuy def pour ñoom bu ñu dee àjjana lañ jëm loolu nag moo tax bu ñuy xeex terrorisme te boole woo ci ñi jàng te xam lu baax baaxul am am sagesse. Mhm. li ngay xeex du dem. dëgg la suñu benn mag magu daara Souleymane Bil Bili Pay dafay wax ni góomu xol kaso du ko faj ak ay yar. Hmm. góom bu la naqare sa biir xol. Hmm. ñu ne kaay nañ tëj leen ko dóor leen du ko faj de. bu génnee it góom baa nga fa. góom baa na da ngay créer ay conditions teg ko ci ay nit ñoo xamante ni ñu jël loolu dindi ko kon li may métti mooy ñii daanu ci jàkk yi ak ñi dàngam bu ñu bu leen xoolee ba jàpp leen ay jullit lañu ñu doon li ci gën a tuuti rek Charlie Hebdo ko def ay lan la donte lañ ko def ay lan lañ ay jullit ay jullit lañ yoo xamante ni dañu gëm dañu def nangam nangam ba tak laa la xuma lañ fa def ñaata nit ñoo ñoo fa ñoo faatu ay jullit ay yëf ña ko def ñan lañ kon loolu dafa jar a xel te nit ñi dañ leen di maanaam jàngalekat yi sama classe yi nga xamante ni ñëpp la ñuy dugal safar ñëpp la ñuy dugal safar <laughs> da ngay dema dema dema dem dem ba yow da ngay amul benn issue amul fenn fu nit war a mën a jaar ba tuub ci ay bàkkaaram wala nangam nangam nangam amul kon bu may wax Cheikh mm. bu ma tufalee sama kàddu sa kàddu Oustaz Ahmed mm. nekk l'islam du ko nangu fenn may leeral rek ci ñi ñuy déglu mm. ne lislaam la muy wax ci wàllu googu mm. jihaad li tudd te jihaad bi comme ni nga ko waxee mm-hmm. du ay nit ñoo koy taal sëñ Cheikh daan wax ne yi si daaj maal nee na mm. taal jihaad waajal ko moo gën mm-hmm. taal jihaad jëm ko waajal moo gën mm-hmm. boo ko waajal da ngay da ngay da ngay kon ñu xam ne lislaam bu ne baatu jihaad jëlul sànni ko dañ koy décréter état moo koy def boo xam dafa am buur bu ko jiite te lislaam doo dem bàqara ba naasi cheikh benn ay banaan leen jóg leen yéen seet yam bi tey yeeg ñu sa am yéen a julli dem na ngeen dóor yéefér yi rey leen il leen ci lislam amul amul ci alxuraan amul benn ayib loo ko wax benn laa ikra fi diin la wax kenn du forcé kenn ci diine mbir mi leer na waxal li nga war a wax waxal ñi nga war a waxeel bàyyil kon loolu lislaam a koy décrété bu ñuy dem dafa am ay ponk ponk yi na yéene bi rafet la koy def na ko def ngir yàlla boo ko def aussi def ko pour wàllu tooñ jóg fi ak leen defaan sa bopp moo tax jiyaat du farata du farata jëm du fardu ayn mhm. fardu kifaay la fi muy nekk fardu ay fi muy nekk obligation pour ñëpp mooy jihaad boo xam ni imam maanaam président bi ci boppam buuru julli ñi moo ko décrété amirul muminin amirul muminin ci lay soog a nekk fardu ayn wala boog décrété mais dañu ji saa rek noonu ñu song ñu song réew mi su boobaa nag amatul imam ak ñàkk imam nañ ñëpp jóg mag ñeeg ndaw ñi ñëpp nañ jóg pour défendre seen réew pour défendre seen aq pour défendre seen seen yëf kooku noonu la noonu lay demee su loolu amee aussi dafa am ay teggin xoolal teggin yi ñu ne bu ñu leen waajalee ba ngeen dem. Hmm. ñu leen bu ngeen demee bu leen rey màgget. Hmm. bu leen rey jigéen. Hmm. bu leen rey xale. bu leen fekk ab labbe bu nekk ci église am ngeen bu leen ko rey. bu leen fekk am ndox ngeen di ko yàq. bu leen yàq ay tool. bu leen dagg ay garab. même yow boo dàqee seen noon ba jot ko bu ko lakk. rey ko rey bu rey bu ëff. waaye lii. bul wuññi awraam bul lii mooy jihaad ci lislaam kon jihadiste bu ko lislaam waxee kii lay waxal mais wax la kële bii sax jihaad bu ñu organisé la bu tegu ci yoon la mu ngoog moo tax man la jihadiste foofu foofu foofu la normalé mais normal wul fii xoolal yonent bi saa salaam bu daan waajal gars yi ba ñu dem lu muy wax intaliqu bismillah wa billah wa ala millati rasulillah wala taqtulu cheikhan faniyan wala tiflan sagiran wala imraatan واصلحوا واحسنوا ان الله يحب المحسنين يرغي دم دي بو غان ديمي دم لن سي تي تور يالا لي غان ديف نكو خامني يالا لين دي غيس تك لن كو سي يونس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بو لن ري ماغيت بو لن ري خالي بو ندو بو دي جيغن رافيتال لن باخال لن دافال ندخ يالا دا فبغ يملن لي ليرنا كون ني لا افي بي ديمي لغي نك نغا اوسي سما كلاس غي خامني لن دي وار دي تيب كوماسي رندي نيت Ahmed wax na ko sànq. ñu bëri yaakaar nañ fi mu bu fi l'islam taxawoon yéefar chrétien bi leen rey ñu bëri loolu lañ foog parce que ni leen ko waxee la te alxuraan nee na yanhaakum allahu an illazina lam yuqaatilukum fi diin wa lam yuxrijukum min an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin yéen communauté musulman bi nga xam ne yéen yor réew mi di ko atte seen mbokki ñu dul jullit yi nekk ci réew mi nga xam ne ñu jàpp seen jàmbat di jàmm seen i borom ci nañ koy jàmmoo ñooñu lu ngeen mën ci lu rafet ci lu baax def leen ko ñoom àll leen ñoom dëkk la ñoom dëkk bu rafet peeg nekkuñ di jalgati li liñ def kooku dina ñëw di di dugg ci kanisi di ko rey. Hmm? beneen mooy zimmi l'islam buy dox dañ naan la ñi nga xam ne du ñu ay jullit te nekk ci keppaaru islam islam am na droit ne di leen bàyyi ngeen di ngeen di lekk di naan di tukki di dem di ñew di def lepp mais nag dina am charte yo xamanteni ni di seen diine mais amna charte yo xam nak ñokoy ñoo bokk ku fa reey dañ leen reey waaw ku fi def nangam dañ leen def nangam mu yoyu nga xamante bu am non attaqué réew mi ñokoy koy bokk jàmmaar la merci bien yooyu leen la wax ba pare bàyyi l'accès si ko kooku am na droit rey ko yentou bi sallam lan wax ci wàllu googu képp ku reey chrétien boobu nga xamante ni da lislaam ko ar xeetu àjjana du la xeeñ ëllëg képp ku fekk koo xamante ni du julit mais mi ngi amal julit ñi jàmm ñu def cohabitation bu rafet soo ko ree na nga xam ne bu ëllëgee yoon xam man may taxaw place am pour pour pour pour pour pour faylu ko cheikh lii vraiment lu rafet lu rafet mënut ko passé. déedéet c'est dëgg dëgg. donc façon bii moom la l'islam di def mais jël ay bombut dem tal def naa nangam loolu moom wax dëgg yàlla dafay dellu ci. dégginu lislaam bu xat ak bu xóot boo xamante ni maanaam tegul fi war a tegu te loolu aussi loolu nag maa ngi maa ngi bàyyiloo sama xel sama bopp di ko bàyyiloo gouvernement gouvernement bi ak keneen keneen ak keneen lii ñuy xeex muy rébellion yii doo ko tuddee euh, nangam fekk bàyyi loolu xel duñ dem jàmm li na ci ci ci fin bi nañu bàyyi loolu xel jërëjëf euh, Cheikh ba bu ñu la déggee mel na ni d'accord dogu ma la sax waaw gis nga zimi yooyu ma la waxoon hmm. même weeru koor hmm. weeru koor hmm. xanaa lislaam kañ bu doon kii danaan bu weer ko ñëwee bu kenn nan waaw ah, dëgg dëgg mais dañ la weeru koor su bu ñëwee ñoom nañ naan seen sàngara nañ lekk seen yàpp mbaam ah. waaye nag buñ génn ko manifeste si biti nañ ko def seen biir kër yi lislaam kañ wax dëgg yàlla ah, lislaam diine tolérance la wax dëgg yàlla kon mel na ni ku ku ku ko indil la xatal gi yaa ko def mais sa déggil ne mais du lislaam dëgg dëgg mi la déggee amul lay Eh, dem takk ay bomb dugg ci jàkk dugg ci église fekk ay nit rey leen kooku amul lay kenn mënu ko firi teg ko ci lislaam maanaam ku ko firi tuddee ko lislaam it yaa tuddee loola lislaam mais loolu du lislaam wax nga ñu comme li xew Charlie Hebdo barki dee boo njaay li ci métti na nga xam ne ñëpp la métti du yow rek mu xew ci jàkka wala ci benn église ñu nit ko fekk ca loxo ab julit ñu ne lislaam diine tolérance la ana tolérance ba ñu ne lislaam diine jàmm la ana jàmm ja ndax su boobaa ñooña ñoo ñoo ñoo ñoo langoo lislaam jëfee lislaam te fekk bari mu andi lislaam lislaam nekku ci ñoom dara tayib Cheikh Ahmed xam naa li ñu des ci waxtu bëri waaye <laughs> bëggoon nañ euh, deux minutes trois minutes nga leeralal ñi kay fiyatu mu waajaxa nan la ñu mën a def ba jàmmaarloog li xew nii tey mm-hmm. ak ci ban méthode lañ fay teg wallaay jërëjëf gis nga ndeysaan mm-hmm. li ma bind ndeysaan mbak mi Cheyba ndeysaan daf ma feelu ci waxu El Hadj Malick mm-hmm. istadaadul mujahada waaw <laughs> moom laa bind ndeysaan ah. maanaam Euh, ñun alhamdulilah am na ñu naan euh, boo déglu déglu tubaab yi. Hmm. ñun li ñu yàlla euh, li ñu yàlla aare ba léegi ñoom dañ koy étudier man secret moo fi ne nangam nangam hmm. nangam nangam. baax na ñu ngi koy étudier. man Sénégal. waaw ñu ngi koy étudier bu baax ku ne indi ci sa xalaat. Hmm. am na sax ñu ne <laughs> nee nañu. maa ci dégg benn tubaab mu ne mooy socialisme primitif. <laughs> ñu ne africain yi fii dañoo am benn. socialisme maanaam di ak booloo goo xam ne dafa yàgg ci ñoom. Mhm. moo tax nangam ak nangam. Mhm. am nga ñoom comme du ñu référé wu ci l'islam. Mm-hmm. dëgg la wante man dama naan ci solution bi nga wax ni. que mm. fisul mu waajaha dafa am préparation yoo xam ne yàlla na yàlla fayal suñu mag ñu baax ñooñu. amiin yaa rabbal aalamiin ak méthodologie surtout bi ñu indi. Mm-hmm. méthodologie bi ñun dañ koy euh, dañ koy wax sax yoon yu bare mais dafa am tu ay angle yoo xam ne duñ ci duñ ciy appesantir. Mm-hmm. moom mooy xam nga alxuraan daf ñuy jàngal danaan la wa wa yuzak euh, wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaaba wal fit euh, wal xikma mhm. euh, tazkiya mooy yar maanaam dañu ne yar mooy jiitu ak njàngale mhm. ndax nit ki bu fekkee yaroo ko amul amul discipliné ko mais bu jàngee du dégg même bu jàngee du baax <laughs> du baax wala sax njàng di nekkaat musiba ñoom ñu prioriser. Mm-hmm. encore ñi ñi ñi pour nga dégg seen wax ñu dañoo prioriser suluk. Mm-hmm. sonn ci sonn ci sonn ci ba nga xam ne boo leen di nemmee bu fekkee xamul da nga naan mayu ñi ano ah defuñu ay université yu mel ni nangam ak nangam ak nangam mais ñoom am na leneen lu ñu lu ñu tabax. Mm-hmm. ay yeneen doomu aadama yi xoolal tey bu màggal jotee wala gàmmu jullit ñi ni ñuy bàbbeeku di jëm ci gàmmu yooyu da ngay gis nawaasi bi. <laughs> <laughs> bés bu ne ñu wax ci. dañ koy dañ ci dal dala dala dala dala wax ba ba jeexal far sax am na si benn bu yàggul bu ñu wax boo xam ne économistes yi ñoo leen far euh, ngalaab seen gémmiñ. Hmm. ñu leen xoolal ni ñu yàq xaalis bi. xoolal li ñu nangam nangam. yàq li ci ne bi bi économistes yi génn leen de déedéet ñun ci économie liy soqali liy làbbali économie mooy consommation. Hmm. ñu ne muut. tubaab def na ko. Tivaouane def na ko xool tontu boobu rek ay économistes spécialistes ay universitaires ñu def benn kii boo xam ne waa bi mu koy def dafa ci wax benn euh, étude mu ne gis nga étude bi ñuy defee coupe du monde yi. maanaam euh, koppar yi muy indi. étude boobu li ñu jël natt ko ci màgg la màggal ak euh, ak gàmmu li muy indil Sénégal li muy làbbal ci ay économie yéen ngeen nekk nekk ay naqa sa ngeen naan eh, kile beneen bidaa la ci benn boor bi nga xam ne tey moom lañu moom laa moom laa waaye mooy su eh, eh, tazkiya tazkiyatu nafs bi nga xam ne julit bi dañ koy tàggatal maanaam ci El Hadj Malick li mu wax maanaam lan nga war a lan nga war a préparer julit bi balaa daraa ñëw jàngal ko mu am tadxiya hmm. sacrifice ñi naan xidma maanaam di defe fii sabilillahi nga jël ci sa temps di ko joxe jóge fi départ coono yi nga dem ba Tiwaawoon dem ba dem ba Touba ak coono bi joxe sa alal taxawee nit ñi ñiy def fi sa sabilillah joxe it am di ko def at mu nekk loolu la muy la muy fóot ci sa xol. Hmm. ak préparé nga def ko ak sa njaboot. di ko def ay guddi àjjuma te yooyu mag ñi di ko di ko di ci entraîner nit ñi di ci entraîner yooyu bokk na ci li nga xam ne. ab takfiir yi bés bu ne bu ne fi dagay dugg ci mbooloo mi bala ngaa génn ñoom xam nañu bu baax. jërëjëf léegi nag euh, ngir foofu dañ naan ab saay-saay bu la bëggee bu la bëggee song. Hmm. danaan la yow yoo xanaa yow sa jaas ji nga nga yaakaar ah yow sa lii nga yaakaar moo tax. bëgg nga bàyyi ah, ko yow bëgg nga nga bàyyi loolu nag pour ñu mën la ñu mën laa song. wante fii ñu ngi ci suñu. Euh, taskiya yi. Hmm. duñu mënal tous ba tous bolo jeex. jërëjëf Cheikh Cheikh Ahmed bu mën a inshallah mel na ni kër yi kër yi sëriñ si fi nekk. yar bi li ñu tarbiya. tarbiya ruhiya ñun mo ñu inqas ala aqali taqdir. Cheikh Seyba kayfiyatul muwaja 2 eh, minutes noko jang wa ni makoy koy moy pour jële fi li fi am. dama hmm. ko jëlo ci ñaari slay hmm. ben bi local la ñu nen la. Hmm. ben bi mën naa ci biti. gouvernement yi rawatina suñu bos. Hmm. buñ la indilee loo xamante ni def la jaxase. nga bëgg koo xeex. intérieurement ci sa biir réew. bi war a hmm. yow mi ñu dimbali kañ. Hmm. yaa xam sa yaa xam nooy. yaa xam sa màtti lan de. Ah, yow la war a déparé. donc xeex bi ñoom commencé guñ ko. te commencé guñ ko mooy li may wax amagul. il faut ñu bo nit dina yi. woo société civile woo journalistes ak ñoom état bi woo sociologue ñu jàngat li ñuy jàngat ku nekk ci bor bi nga mëne yow li lay déglu ci ay nit ñaata lañ mhm. kii li koy déglu ñaata lañ ñu mel ñuy julli ñaata lañ mu nekk benn programme commun boo xam ne ci ñun lay déparé programme lay doon boo xamante ni dafay dugg ci benn plan d'action mhm. xutu amal bu yaatu lay nekk mais mu ne am ci benn programme wax pour loolu la kooku foofu laay waxee. liy jóge ci biti nak France bu la bëggee dimbali wala amerique wala nangam nangam bu mu conditionné stratégie bi ya indi du mom mo la koy wax parce que dëkku fi xamuko d'accord la mom ci len nak na la dimbali ci ngànnaay na la dimbali ci moyen na la dimbali mais pour walu stratégie ak wàllu wax. saytu bu ci nek ben japp na ne loolu bu ko xasse ba def. duñ am jafé jafé mais toog ñiy tiital di menacer menacé. Hmm. ñom ñi menacer ñom mënu ñu fa seen góom. <laughs> waaw. temps pass lu fa amoon bu yagul Amérique taw loon ba mu yàgg mu ne nañu nañu góorgóorlu am na musiba mu fi ñëw français yi ne ne loolu ne loolu amul. ne loolu bu ñu ko xamoon duñu aar seen bopp ci ci septembre. France la fa am ba mu fay am ba ana ñu. yegguñu ko de donc Cheikh ci gàttal daal il faut ñu boole gëm suñu bopp. boole doole yi. jërëjëf euh, Cheikh Sayba euh, benn li bu ñu la déggee feeñal nga ne euh, lu lu ñëpp bokk loxo yi ñëppee ci tàbbi. waay ka kàddu ngay tàggatu. Ah, gërëm la bu baax baax. Eh, ndax gis naa ni saa su réew mi tolloo fenn fi di nga def benn diagnostic seet ñoo jàpp ni war nañ caa mën a wax nga woo leen kooku maa ngi ci ñaan yàlla di ñaan ñëpp def lu mel noonu di gërëm suñu mag yi. Seydou eh, Ahmed. Ahmed di ko ñaan yàlla di ko ñaan tawfiq. allahumma ñu doon di ñaan yàlla yàlla yàlla defal jàmm. yàlla fi yàlla def jàmm. suñu mag ñi yàlla yàlla gën leen sàmm. amiin yaa rabbi bu baax baax baax a baax. di ñaan yàlla tawfiq di bal ñaax mhm. salaamaaleykum alaykum salaam Cheikh Ahmed yan kaddu ngay maa ngi euh, maa ngi jeexale sama kaddu rek ci gërëm la di la sant ci fardu kifaaya bi nga xam ne yaa ngi koy def fardu kifaaya def wax nga ko bul benn yoon du ñaari yoon mooy li nga xam ne dafa war ñëpp bu ko ñenn ñi taxawoo mu wàcce ña ca des comme que ñi jàng lislaam euh, lii seen warugar la ñuy leeralal askan wi seen àq la ci askan wi ñuy déglu moo tax amul du euh, laa asalukum alayhi min ajrin mhm. euh, euh, waaw doo laaj yàlla moo yore seen seen seen pay fardu kifaaya la ndax si ñoom lay dellu ñaar ñaareel bi moom mooy ci ci ci li ñu li nga li ngay ngeen def nii temps bi ngay jël di ci boo boroom xam-xam yi ñu ci euh, ñu ci indi seen xalaat te nga sawar ci lool surtout ni ngay jëlee spécialisation yi léeg nga jël si économie léeg nga jël ci politique léeg nga ci histoire ci xalaatin yi façon boobu man dama la ci naw bu baax a baax yàlla na si yàlla yokk tawfiq bi jaahi rasul jërëjëf euh, kon mbokk yi nga xam ne ñu ngi jëloon seen temps jàkkaarloog seen télévision 2TV ci seen émission bi ñu tuddee ëttub l'islam li yàlla dogaloon ñaam ko ci waxtu lu ci rafet yàlla la neex mu rafetalee ko nii lu ci manqué ci matadik ñun ñi ko doon def la ñoo ngi leen di koy jégal ñoo dellu gërëm suñu invité Ahmed bi di ko ñaanu yàlla tawfiix di ñaan yàlla jëf ji yàlla bu mu neen yàlla ko yalla def fi misaani asanaat yi di gërëm suñu invité oustaz Cheybatu Ndiaye di ko ñaanu yàlla tawfiix di ñaan yàlla jëf ji yàlla bu mu neen yàlla ko yàlla def fi misaani asanaat di gërëm suñu réalisateur di gërëm suñu preneur de son di gërëm waa régie bi di gërëm caméraman yi di gërëm ñi nga xam ne ñoo ñu féetee ci wàllu éclairage mbokk yi nga xam ne mbaax moo leen ñor ba ñëw fekkee si jotaay bi Babacar Ndiome Ndiaye ak soxna si ñu ngi ñaan yàlla boole ñëw yiw yi ñu ngi leen di jox rendez-vous dox dajee àjjuma bi di ñëw insha allahu mawlana wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala jërëjëf مثلي حبيبي سناه من عطى ربي قلبي له موئل يرعاه بالحب بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله Monsieur, merci de votre fidélité renouvelée à la magie de la télé, la télé de l'éducation DTV. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans votre émission éducative San Campus. L'émission qui jette un regard vivace sur l'espace universitaire et invite les acteurs à y prendre soin. Et pour démarrer, voici la première rubrique de l'émission Actu Campus. le 2 novembre, le campus social de l'UCAD a ouvert ses portes. L'université reprend vie petit à petit. On est revenu aujourd'hui pour, en pour loger définitivement. Quoi. Franchement, par là, nous, on a récupéré notre centre sans aucun problème. Hein. Quand on parle d'ouverture du campus social ou des cités universitaires, il y a l'ensemble des œuvres sociales qui suivent il ne s'agit pas uniquement de l'hébergement, mais il s'agit de la restauration universitaire, du service médical. Et jusque-là, de mon point de vue, tout se passe bien. Les cours n'étant pas encore effectifs, pour bon nombre d'étudiants, l'heure est au... Très importante. Pas bon, tu révises bien, tu peux aller dans les amphis, réviser pendant X temps, sans aucun problème. Parfois dans les maisons, parfois la vie à Dakar c'est serre. Tu es dans une maison, l'électricité, l'eau tu utilises, tout cela. Alors que ici, bon, c'est aucun problème. Cependant, c'est un combat de titans pour les étudiants d'accès à ces logements sociaux. Ils sont alors obligés d'aller louer dans d'autres quartiers de Dakar. Moi, l'année passée, je n'ai pas eu la chance d'avoir une chambre ici à l'université. J'étais obligé d'aller prendre une chambre ailleurs. Je paye 45 000 francs Les bourses ne sont pas aussi généreuses que ça. Ça couvre à peine nos besoins. C'est dur d'avoir des logements parce que ici les étudiants sont nombreux et, les logements ne sont pas suffisants. C'est difficile. On est obligé de parcourir euh, les banlieues pour se loger. L'université Charente Diop de Dakar contient entre autres 100 000 étudiants. Seuls 5 000 y logent. Des projets de construction de logements sociaux sont en cours. Au moins 4 000 lits de plus seront mis à la disposition des étudiants pour résorber. Les allées danses, les étudiants constitués en groupe. La faculté de médecine reçoit ces nouveaux arrivants à travers une journée d'accueil, les étudiants de l'amicale fournissent de l'aide aux nouveaux bacheliers, ceci en vue de mieux faciliter l'intégration et leur faire comprendre la nomenclature de la dite faculté. On a constaté que les nouveaux bacheliers, une fois qu'ils arrivent à l'université, l'université c'est un nouveau monde. Là, ils sont éparpillés, ils sont perdus. Donc c'est tout à fait normal. La structure syndicale, l'amicale qui est présente dans la faculté puisse organiser un accueil pour les orienter. Venu fraîchement du lycée, Connaître la fac et aussi m'a beaucoup aidé. Cette année, la faculté de médecine a reçu plus de 800 nouveaux bacheliers pour le président de la commission pédagogique de l'amicale. Cela ne va pas changer. Le lab de l'excellence de la faculté. La faculté de médecine est une faculté d'excellence et restera toujours une faculté d'excellence. Parce que ce sont les meilleurs bacheliers de l'Afrique de l'Ouest, les meilleurs bacheliers du Sénégal et de la sous-région qui y sont orientés. Aider les étudiants à réussir dans leurs différents cursus, l'une des préoccupations des amicales de faculté, ces nouveaux venus ont eu également droit à un face-à-face avec les différents clubs de la faculté pour présenter les différentes filières d'enseignement, leur pertinence et les débouchés pas négliger une vie humaine. Même si c'était une personne tous les dix ans qui quitte pour cela, il faut interroger la question. Un véritable cri de cœur du ministre de l'Éducation nationale, Serine Baïtiam. Ce, après un constat de nombreux cas de décès survenus lors des épreuves physiques. Le dernier remonte au mois de juillet à Saint-Louis, où Ndiaye, en classe de troisième, décède des suites d'un malaise. Dès lors, le caractère obligatoire des visites médicales pour les élèves se pose. Les visites médicales sont respectées dans tous les états. En tout cas ici, c'est bien respecté. Pas plus tard qu'hier, tous nos élèves de terminale ont eu à subir donc cette visite médicale. Avec les morts subites, bon, on ne sait pas tous les problèmes qu'il y a et tout. On ne prend pas aussi le risque de faire faire un élève le PS alors qu'il est inapte. Après les classes d'examen, ce sont les élèves de 6e, 5e. Euh, habituellement, depuis que je suis là, ça se passe comme ça. Tous les Des anecdotes ne manquent pas. Cette infirmière est en moi de certains cas de malaise. L'année dernière, on avait une élève très brillante, machallah. Elle, faisait des crises, même pour euh, l'examen final, le bac. Mais malheureusement, elle avait fait des crises. Elle est passée au second tour. Malheureusement, on l'a retenue. Euh, d'où l'importance pour les élèves de respecter les visites médicales, car il y va de leur vie. Oui, je respecte les visites médicales parce que ça permet de savoir qu'est-ce qu'il y a dans, notre corps, quelle maladie on a dans notre corps. Les parents ont un rôle de veille sur les antécédents médicaux de leurs enfants, euh, d'où l'importance de les sensibiliser davantage sur la question. Ah, c'est une plaidoyer par rapport euh, aux parents d'encourager les les enfants à faire leurs analyses parce que cela y va de leur santé. Il faut qu'ils fassent ces analyses, comme ça on pourra savoir si l'élève sera dispensé ou si l'élève est apte de faire l'épreuve physique. Pour parer à ces éventualités,